Allahu akbar. La ilahe illallah.
لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة نادي محمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نعوذ بالله من النار إخوة الإيمان أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم إن هذه الشهر هو شهر الحرام الشهر الإسراء والمعراج أو كما قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ñu ngi sant yàlla ñu ngi koy màggal ñu ngi koy kañ ñu ngi julli tey sëlmal ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi ñaan yàlla mu dolli ko xéewal moom ak waa këram ak képp koo xam ne teg na tànkam ci sunnaam ba bés penc yàlla na ci yàlla boole doomu ndey yi bokk jullit ñi ñu ngi dénk suñu bopp di leen dénk ñu takkoo ragal yàlla fu ñu munti nekk te ñu xam ne ci loolu rek la ñu mën a amee teraanga àdduna ak alaaxira yàlla nañu yàlla defal li nga xam ne mooy ragal yàlla boobu doomu ndey yi mbokk jullit ñi dañ ko waxee woon ci xutba bi passé ñu ngi nekk ci weer boo xam ne weer bu yàlla wormal la turam nekk li nga xamante ne moom mooy rajab nekk weer boo xam ne première particularité rek mooy weer la boo xam ne yàlla daf koo warmaal ñaareel bi yàlla def ci kéemtaan boo xam ne tey jii moo waral ñu toog nii tey di julli muy weer boo xam ne ci la yàlla rañaanee ki nga xamante ne moom mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ñaari anam bu njëkk bi dafa nekk al isra beneen bi nekk wal mihraj al isra moom mooy firi voyage boo xam ne da ngay jóge ci gox bi muy voyage bu tàlleeku bi dem ci beneen gox yàlla moom moo ñu ko xamal ginnaaw bi mu ne subhaanallazi sell na moom mi nga xamante ne moom yàlla asra moom de moom moo voyagel li nga xamante ne ni moom mooy abdihi jaamam te yonent bi la si jublu mu yonent yàlla muhammad kañ la ko def ci guddi la ko def laylan fan la jóge minal masjidil haram mooy màkka bii ñuy dem aji màkka fa la yonent bi jóge jëm fan ilal masjidil aqsa jëm ci jérusalem mooy masjid aqsa nekk bërëb boo xam ne allazi baarak naa qawlahu yàlla nee na man maa barke lépp lu wër jérusalem tey mooy jàkk bi nga xamante ne tey moom la ñuy xëccoo juif bi daf fay gis boppam chrétien bi daf fay gis boppam ñun ñii dañ ciy gis suñu bopp jullit ñi jamono nangu nañ ko ñoom ñu nanguwaat ko ñu nanguwaat ko ñu nangu ko waaye fu ñuy mujjee lu yonent bi saa salaam xamal mooy ñun ñoo koy mujjee waaye jamono bi nekkul suñu autorité à cent pour cent moo waral ngay gis émeute yi fay am jamono yu bëri nit ñi dañ leen fekk si jàkka yi di leen taal wala di leen mete di leen tiir ay pistolet di leen rey yàggul dara ci weeru koor bi passé rek amoon na parce que xëccoo boobu moom moo fa nekk ndax béréb la boo xam ne yàlla moo ko barkeel moo barkeel li ko wër comme ni ñu ko waxee nii allazi baarak naa qawlahu yàlla moo barkel masjid aqsa barkel li ko wër Seydina Umar ci jamono nguuram moom mooy ñaareelu xalif ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ci jamono nguuram doxee na Médine ba foofu yàlla dimbali ko ak ay soldaaram ñu gañe ba récupérer ko téye ko ci seen loxo ñoom jullit ñi waaye comme ni nga ko waxee woon ci xutba bi passé jullit ñi dañu dem ba bëri waaye xamuñu seen taxawaay bëri loolu te néew doole su ko defee ñoom tamit ñu jël ko jëlaat ko suñu loxo waaye yoon saa salaam xamal na ne ñun ñoo koy mujjee ndax amul werante ne yonent yàlla Isaa dafay ñëwaat te ñëwaat bi muy ñëwaat daf fiy tombe ki nga xam ne mooy imam Mahdi nekk imam boo xam ne lu ñu yàqoon ci mille ans moom yàlla mën na ko dimbali mu defar ko ci benn guddi noonu la ñuy fonctionner dajjaal day ñëw te jamono boobu dina fekk jullit ñi amaat taxawaay boo xam ne amaat doole boo xam ne diine bi leeraat liñ ci yokkoon liñ ci sosoon yëpp mu leer ci bopp nit ñi ñu bàyyi ko teguwaat fi nga xam ne foofu la yonent bi teewoon sahabatul kiram islam amaat doole bi mu amoon xëy na yooyu dina ñëwaat ci yeneen xutba kon fii mooy masjid aqsa yonent bi saa sallam jóge makka dem foofu mu nekk ay kilomètres nag ci jamono boobu nga xamante ne voyage gëléem moo ko doon def nga xam ne bu doon naturellement la voyage bi boo moytul dina ko def ay weer waaye yàlla defal ko ko ci benn li nga xamante ne mooy guddi yemul ci voyage boobu noonu mu am wal mihraj mooy bi mu yeggee ci bi masjid aqsa dafa def beneen voyage boo xam ne dafa jóge léegi ci suuf yéeg ci kaw moo tax bi ñu tuddee al isra mooy dafay jóge ci bërëb dem ci bërëb mooy voyage bu tàllee ko bi waaye wal mixraaj bu mu yeggee foofu mu daal di jug ci kaw kon lii moom mooy li nga xamante ne moom mooy histoire weer bii nekk weeru rajab te ci weer bii la ko yonent bi saa saam defoon kon lu ñuy gis ci weer bii bu njëkk moom mooy yàlla wormaal na ko waaye weer la boo xam ne ci la yonent bi defoon voyage bi te voyage bi la ñu indil sërite boo xam ne mooy suñu sérité teraanga ak teraanga àdduna ak àllaaxira muy julli bii ñuy def xam naa bu ñu jógee toogaat ci la ñuy dellu si kon ñu ngi dégg ay mbir yu bari nag ci weer bi boo ci wooree sàngam boo ci naafilaa sàngam dem nañ sax ba ne dañ ciy lekk naat ku ci lekk naat fa ngay jaaree naat ba faw loolu yaakaar naa ci xeeb borom bi subhaanahu wa taala la bokk yàlla xéewalam ci jaami du xaar pour période mu koy def loolu question bu ñu war a laaj la ndax yàlla xéewalam dafa néew doole bay xaar benn période mu koy defal jaam bi question bi mooy déedéet yàlla dafay xéewalul jaam bi ci période bu mu nekk pour nit ki naat moment bu ko neex la koy yàlla di def yàlla mooy xéewalul ku ko neex mooy xañ ku ko neex wante da ngay gis ne est-ce que yàlla dafay xaar pour nit ki jëfandikoo sàngam ngir mu mun koo naatal loolu yëpp ci néewal li nga xamante ne moom mooy capacité yàlla la bokk te loolu waruñu yàlla mooy ki nga xamante ne ala kulli shay'in qadir lu ko neex lay def kon li mu bëgg def du ko jaarale si nit ki dafay lekk naat pour mën a naat te jamono bi ci weer bi lañ ko digle nekkul loo xam ne lu wér la barki démb rek maa ngi déglu aju muy passé ku ñu wax sëñ Mbàkke Rafaayil moom la def xutba leeral ci lu am solo mu nekk weer boo xamante ne lu rombul ñaar yi amul leneen te musta nekk weer boo xam ne da doon ñëw sahaaba yi di am lenn luñ ciy feetu ànd ak yonent bi déedéet weer la boo xam ne bu ñu warmaal leeral nañ xutba passé weer bu ñu warmaal ban comportement lañ ci war a am mooy du ñu toon suñu ba bakken du ñu tooñ suñu moroom dañ ciy moytu lépp luy bàkkaar weer la boo xam ne kenn du ci xeex kenn du ci tuuru deret loolu mooy warmaal bi ko yàlla warmaal ñaareel bi ñu am ci teranga bu màgg bi yont yàlla Muhammad def voyage bii ñëw xamal ñu lu bëree bëri ci àllaaxira kon lii la ñuy jàpp mooy comme weer bi mais nekkul weer boo xam ne dafay am ay ngëneel ci ay koor nekkul weer boo xam ne dafay am ngëneel ci ay julli wala nekkul ay ngë- weer boo xam ne dafay am ngëneel ci kii weer la comme yeneen weer yi weer bu nekk yoon saa salaam daan na woor ñetti fan moom lañ tuddee ay yaamul biit di les jours blancs mu nekk le 13 le 14 le 15 ci weeru jullit ji saa bu ñëwee nit ki dafa war a woor weer boobu jour yooyu yonent saa salaam nee na képp koo xam ne woor na ko dafa mel ne woor nga weer bi yëpp kon ku sàlloo weer bu ñëw nga woor ñetti fan yi dafay mel ni at bi woor nga at bi yëpp bu dul loolu da doon woor lundi yi di woor jeudi yi kon amul benn différence mu am ci yeneen weer yi lu lii nga xam ne mooy woor yi ngay woor te yaa ngi koy woor ci yeneen weer yi kon li nga xamante ne tamit mooy naafila yi wala naafila guddi yi du mës a dañ yàlla bi mu bindee àdduna ba keroog àdduna du tukki chaque guddi dafay wàcc di woote kan moo may woo ma wuyu ko ku may ñaan ma may ko ku may jéggalu ma baal ko te nekkul daf koy taamu rek ci weer bi waaye guddi yépp la koy def mu nekk ci jeexital bi nga xam ne mooy jeexital guddi bi jamono bi nga xamante ne nii fajar ak li nga xamante ne nii heure boobu soreantenoo li nga xam ne lu mu néew néew néew ci waxtu kon lii mooy particularité bi nga xam ne mooy weer bi leneen lu lii ku ñu ko wax daf ñuy nax daf ñuy jëmee ci li nga xam ne mooy bidaa te bidaa boobu noonu boo moytu daf ñuy jëmee ci shirk ci bokkaale parce que nit bu demee ba yaakaar ne wërsëgam yàlla mu ngi koy aj ci mu lekk naat ci weer bi pour mu mën a naat foofu mu ngi boo moytul shirk lay def boo moytul dana ba commencé di jaamu naat bi sax boo boo moytul wala mu jël ay privilège jox ko naat bi fàtte borom bi subhaanahu wa taala kon yooyu ay mbir la yoo xam ne dañ ko war a moytandiku nañu moytandiku lépp loo xamante ne ni daf ñuy jural bidaa moom la ñuy wax tout le temps si xutba yi inna ahsanal xadis kitaab allah wa xayral hadi hadi muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa charral umur muxtasaatuha fa inna kulla muxtasatin bidaa wa kulla bidaatin dolaala wa kulla dolaalatin fi nnaar li gën ci jàngale yi wax ji mooy waxu yàlla li gën ci jàngale yi mooy jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li nga xam ne moo gën a yées ci mbir yi mooy créer ay mbir yu bees ci diine bi moo gën a yées te lépp loo xam ne créer nañ ko ci diine bi yonent bi jàngale woo ko woon bidaa la te bépp bidaa réer lay jëmee borom te bépp réer safara lay jëmee borom yàlla nañu yàlla musal ci loolu kon lii moom mooy li nga xam ne mooy ci weer bi dañuy toog jugaat bu ñu jugee yeggali ko yàlla nañu yàlla may dégg ak topp aquli qawli haza wa astaghfirullah li wa kulli muslimin min kulli zambin fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه doomu ndey mbokk jullit ñi nañu xam ne suñu diine bàyyiwul dara mooy diine bi gën ci diine yi mooy diine bi nga xamante ne yàlla daf ñu ko jox ngir bëggal ñu teranga bi nga xam ne mooy teranga bi nga xam ne moo gën a rëy ci teranga yi te teranga bi jëm ba faw muy àjjana li fay yóbbu nit ki lu yomb la ci koo xamante ne ñeme naa tàggat boppam pour tegu ci loolu muy tegu ci jàngale yàlla tegu ci ndigalu yàlla ba sore li nga xam ne mooy ay tereem waaye di ko defee ni ko yoon saa sam doon defee lii mooy yoon bi nga xam ne mooy yoon bu jub doomu ndey mbokk jullit ñi mu bokk ci digle yooyu benn ponk boo xam ne ponk la ci islam ñun ñëpp xam nañ ne islam juróomi ponk la juróomi ponk yooyu mooy kenn keñoo yi nga xam ne moo téye diine bi benn bu ci dañee rek yàq na li nga xamante ne nii mooy diine bi da koy gàkkal mu ngi mel ne mbaar boo tegoon rek samp si li nga xam ne mooy juróomi poto nga jékki-jékki dindi benn ci poto yi yàq nga li nga xamante ne nii moom mooy mbaar boobu rôle bi mbaar bi war a joué dëgg dootu ko joué kon bokk na ci keño yooyu noonu li nga xamante ne nii moom mooy julli as sola julli ñu foyte la ko sax ci li nga xamante ne mooy li gën a am solo ci keño yi ndax mooy bopp li nga xam ne mooy diine bi julli mooy bopp diine bi imagine toi nit ki ngay dox di dem rek ñu dagg sa bopp xëy na loxo bi mun nañ ko dagg nga continuer di dund tànk bi mun nañ ko dagg nga continuer di dund mun nañ dagg nopp bi nga continuer di dund waaye bopp bi moom bu ñu ko xasee dagg rek mooy jeex na dee na kon nit ki bu daggee julli dafa mel ne màbbal na li nga xam ne mooy diineem maanaam diine nekkatu fa te ci weer bii xoola tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li ñuy attewoo lu bëri jibril la koy yàlla di jox mu ñëw indil ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye julli daf koo téye ba invitation bi mu ko defal muy invitation boo xam ne mun nañ ci jàng lu bëree bëri bëri bëri imagine toi yonent saa sallam jóge màkka dem fi nga xamante ne moom mooy mooy mooy mooy beytul maqdis jóge beytul maqdis yi yéeg ci kaw ndeysaan keroog histoire boobu bi mu bi mu bi mu xëyee di ko nettali yéeféer dañoo kontaan ne tey de tey la ñuy nag waxloo yonent bi nag feeñal feeñal nax yim ñuy nax ndax kenn mënul xalaat nit ki taxaw yëkkati benn tànkam bii nii rek yëkkatiwaat beneen mu fekk si ko mu nekk noonu ci air bi mënuñu ko xalaat moom mu ne def na ko jóge fii dem ba romb asamaan yi juróom-ñaar yëpp ba dem ba jël li nga xamante ne nii moom mooy julli ñu ne loolu mënta nekk kon tey la ñuy feeñal nax yim ñuy nax Aboubacar mi nga xam ne moo ko gënoon gëm ki gën a màgg am doole ci yéeféer yi njëkkante dem gis ko ne ko sa waa ji dof na nag ndax moom kat yaa ngi doon wax ne lu mu wax dëgg la waaye tey ngay xam ne wax na loo xam ne moom du dëgg ndax lenn mënu koo nangu parce que ñoom ñu ngi joué seen xel te xam fàttali ne yàlla mooy def lu ko neex mu ne ko lan la wax mu ne ko nee na de daf fay jóge démb ci guddi dem baytil baytil maqdis jóge baytil maqdis yéeg dem ci kaw romb asamaan yëpp loolu xel mën na koo nangu xam ngeen ne kii daf leen di nax xooleen Aboubacar lu mu tontu te loolu moo war a nekk suñu taxawaay ñun ñëpp. yonent bi noonu la ñu war a amee confiance ci moom ci ay waxam dafa ne Abu Jahlin ne ko est-ce que yonent bi moo ko wax question boobu la ko posé mu ne ko waaw moom moo ko wax kay mu ne ko kon gëm naa ko en tant que yonent bi moo ko wax rek mu leer suñu bopp rek amatul sikki sàkk képp koo xam ne gëm na yàlla di woote yàlla ak yonent bi bu yàlla waxee ak yonentam waroo wax mais moo tax bi mu leerloo posé question bi ne ko ku ko wax yonent bi mu ne ko moom moo ko wax di ko tontu nag ak kontaan di yaakaar ne tey abu tey Abu Bakar wedd yonent bi ak li mu def ci diine bi yëpp mu ne ko comme moo ko wax kon dëgg la kon ñun noonu la ñu war a dëggalee yonent bi saa salaam buñ ne lii sunna yonent bi saa salaam buñ ci ut hésité nañu leerlu ba mu leer ñu ne sunna yonent bi la buñ ci kenn jiitu ndax foofu la ñuy rawantee kon lii mooy li nga xamante ne mooy taxawaayu weer bi yonent bi saa salaam dem jëli li nga xam ne mooy julli événement yu bëri xaj fi incha allah dañ koy gàttal fii yemale ko fii xutba bi ñu jéem a taataan li nga xam ne mooy xutba bii di ñëw jeexal ko jéem a nag préparer li nga xam ne moom mooy li nga xam ne moom mooy weeru koor yal nañu yàlla may dégg ak topp yal nañu yàlla xiir ci boppam yal nañu yàlla sàmm yal nañu yàlla may ñu fekkee li nga xam ne mooy weeru koor yàlla may ñu am wér ak kàttan ba mun koo jooxe ni mu ko waree ndax ci weeru koor dañ ciy rawante lu bëree bëri yal nañ ci yàlla boole rabbana atina fi dunya xasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على الأحياء والأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم